sa diggante loxo jàngoroy coronavirus gi lëmbe na jamono ji ay fan a ngi nii gouvernement bu senegal di jot ay ndimbal fu nekk ci Sénégal ci loolu ku nekk di wane mën-mënam ba ci taalibe yi nekk ci mbedd mi ku nekk ci ñoom taxawal ngir wane pas-pasam ngir jële fi bile feebar. dañuy raxas ba set. jël madar omo ñu raxas ba set ñu raxas ba set waaw raxas suñu loxo yi ñu sangu bañ a set ñu sëree yële avant ñu génn avant ñu génn suñu sëriñ bi dañ koy jox mu defal ko tuuti bi mu def nii hmm. dañu yelwaan pour lekk waaw ñen ñay toggan añ lekk foofu ñenn ci ñoom am njàqare ak tiit ci bile musiba ba tax na ñuy wéyal ay ñaan bis bu nekk ay ñaan lañu fi bëgg a def mm. oh. waaw léegi tiitoo leen ci feebar bi ngay mm. léegi nee nañ ngeen toog ci taara yi ngeen jàng ngeen bañ a génn di yàlla oh. loolu ngeen di def ngay tiit nañ kay waaye ñu ngi moytaal def ay ñaan mm. yàlla musal ñu feebar kenn yow wax ne ñu toog ci daara ji kay bu ñu sukkandikoo ci sëriñ daara yi ñoom jël nañ seen matuwaay yëpp ngir aar seeni taalibe. matuwaay bi ñëpp di jël rek ndax démb maire Yoff bi Abdoulaye Diouf Sarr yónnee woon na fi comme ay seel ak madaar ak orsel pour taalibe bi bu ñu génnee ba ñu ñuy rax seen loxo yi après di maytu mbedd mi bu baax baax incha allah. waaw ah, suñu taalibe yi xanaa ko ni ñu ko digalee rek bu ñu génnee ku génn boo ñëwee rax ba pare ñu defal la kii bi nga kii sa loxo yi pour maytu microbe bi bu baax. waaw dina daal te nañ ko fi sañ dugg ba pare ñuy sangu baax di sa yor yu set tamit. ah ku xam ku xam daara yalwaan moom xam nga moom daara daara loo xam daara yu xaw a métti la tuuti ndax xale yi moom buñ buñ génne waaye maire bi tamit indil nañu fi saako ay saako ceeb pour xam ne xale yi bu ñëwee ma xam mënut mënut ñoo génn yalwaan ndax feebar ëpp nañu doole bu fii nii ñu leen toggal si daara ji incha allah. incha allah indi instant bi da fekk ñi ñu leen di toggal sax nii bu ñu xëyee suba teel dañ leen di jox ndékki ñu ndékki ba pare añ bi nii dañuy dañuy añ incha allahu rabi moom lépp loo xamante ni moom gouvernement bi bëgg na ko te dang koy def pour suñu bopp def ko pour askan yëpp waaw. kaawu coronavirus yi fii ci Sénégal di wey di yokk bis bu nekk ba tax na gouvernement bi jël ay matuwaay ngir nit ñi mën a respecter digle yi ndax suñu moywul bile feebar mën na nasaxal suñu réew.